jullit yi ñëw nañ tey mënoo fee xam ne kii moo nekk jullit mënoo fee xam mënoo fee xam ne kii moo nekk tijaan mënoo fee moo nekk murit ñëpp ñëw nañ ngir daal di jaamu yoro yàlla waaye tamit ngir daal di jéggalu lépp loo xam te ne nii def nañ ko ci ay bàkkaar alors li nga xam te ne aussi seetlu nañ ko fi moo di respect des mesures barrières tey taalibe yi ñëw nañ julli si waaye boo seetee ku nekk tey am na espace ak sa morom lépp nag ngir daal di tënku ci ndigal ndax xam nga ne yoonu murit moom ndigal ndigal la donc moo ndigal la donc tey li nga xam te ne noonu la ko kilifa yi bëggee noonu lañ ko defee boo dugg ci biir euh, jumaa ji euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo ngi mbokk taalibe yi ñoo ngi fa di joxe li nga xam te mooy jumtukaay zel yi ah di ko defee daal police yi aussi ñoo ngi fi toog euh, taxaw di xool ngir askan wi mën a dëppoonteeg wala sàmmonteeg li nga xam te ni moo nekk mesure barrière. tey fekk nañ fi benn. Euh, maanaam tey ni ñu jàngat bi ma am ci port masque bi ak euh, distance sociale distance bi nga xamante ni am nañ ko ak ni ko sëñ bi diglee maanaam respect bi nga xamante ni tey askanu Sénégal jox nañ ko ko askanu tey tey jumaa ji dafa fees del ni par rapport ak ni mu daan mel ba pare tamit euh, gis naa ni distance bi nga xamante ne ni tey nit ñi wane nañu ne ndigal li nga xamante ni sëriñ bi joxe na ko respecté nañu ko parce que bi ma ñëwee man tey fi ma fi ma dendeel rek sorante nañ lu mat 1 mètre 50 te yaakaar naa ni aussi yoo ñëpp tey ak lu ñu mën a sol ak yére bu ñu mën a sol rek ku ci nekk teg nga ci sa masque pour wane ni tey am na lu xew ci dëkk bi loo xamante ne nii ñut suñu bopp ñoo ko mën a jëlal suñu ay matuwaayu bopp ñoo mën a aar suñu bopp protéger sama bopp protéger la yow mi nga xamante ni yow laay dendeel waaw wax dëgg yàlla gannaaw ba ñu sant yàlla julli si Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur waaw ñu ngi sant Serigne Touba bu baax a baax waaw ndax ñu tey maanaam wan na maanaam sëriñ Touba kenn la waaw wax dëgg yàlla ñu day bég nañu at matuwaay fi kilifa yi jël waaw ñun daal bég nañu wax sant nañ bu baax daal wax dëgg yàlla ñu ngi yëpp ñëpp gudd fan ak wér waaw yàlla jëlee fi tawat bi waaw ci doole Serigne Saliou Mbacke sant nañ bu baax daal waaw. yéen mbokk jur mbokki ñu ngi leen nuyu di leen baax di si suñu ak ziar bi xalifatul am Cheikh taxal Basiru suñu borom. yàgg ko fi loolu di ànd dëgg yàlla ndax tawat ji moom daanaka ñëpp rek suñ si defee mesures euh, kër docteur digle suñu borom dañ si taxaw bu baax a baax a baax. donc tey bi ñu ñëwee fii ak lu julli gi neex ak li nga xamante ni nit ñi bari nañ bari nañ yaakaar naa ni ñëpp ku ci nekk respecté nga say mesures yoo xamante ni tey dina la mën a protéger ci li nga xamante ni mooy Covid 19 bi. naa constat boobu jàpp eh, xëy na xalaatuma woon ne sax ne benn jumaa julliwul ci ci ci ci ci ci Dakar ak grande mosquée waaye bi ma ñëwee gis nii nga xamante ni ah, mbooloo mi noonu la toll sama xel ña dem na ci loolu muy wane ne rek ñun Sénégal benn bopp la diine ji ñun ñëpp ñoo ko bokk muy diine lislaam tarixa yëpp benn lañu ndax tey ku ñëw Masaalikul Jinaan xam ni fii du murid yi rek ñoo fi nekk. dafa nekk loo xam te nii eh, du lu bees du lu bees parce que eh, ñi nga xam te nii ñoom ñoo nekk. kilifa yi ci kër diine yëpp ñoom ñëpp ñoo bokkoon li nga xam te ne mu nekkoon seen bëgg-bëgg seen bëgg-bëgg lan la woon jaamu yàlla seen bëgg-bëgg lan la woon bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc nag bu fekkee ne lu ni mel dafa njëw ci njaboot gi tey ñun ñu nekk ay doomi aadama soqeekoo foofu waaye tamit bokk ci këru diine yooyu noonu da foog naa ne dañoo ñëw rek def li nga xam nii loolu la suñu maam yi doon defal ñoom ñi nga xam nii eh, ndax bu ñu bu ñu nañ bàyyi xel ci dara mu di kilifa kër kilifa diine yi réeroowuñu réeroowuñu ñoom ci seen bopp xamante nañ bu baax a baax ñoom seen ku jongante lan la moo di ku gën a bëgg yàlla ku gën a bëgg yonent bi sa dëgg yàlla maanaam jàngat bi ñu si jàngat daal mooy waaw Serigne Touba daal kenn du moom waaw dëgg yàlla waaw loolu rek moom maanaam dafa firne maanaam la mu doon liggéey démb waaw maanaam firne ne maanaam bisub tey bi firnde la lépp waaw. Euh, loolu moom li ma si wax mooy comme ça ñu jéem a tegtal docteur resté chez vous ñu euh, jéem a toog si kër yi rek loolu noonu suñ ko defee am naa si yaakaar ne feebar bi incha allah dana fiy jóge incha allah rabbi waaw. ku ñëw Masaalikul Jinaan tey xam ni Sénégal ñoo fi daje julli di ñoo si te yaakaar naa ni Masaalikul Jinaan tey am na benn xar kanam boo xamante ne nii tey maanaam lépp li nga xamante ni woon gisoon naa ko ci ouverture bi rek tey gisaat naa ko ndax nit ñi macha allah bari nañu trop ba pare tamit. ñëpp nekk benn ñu julli ñu ñu nuyonte saafonte ñaanalante jéggalante ñaan yàlla Sénégal def ci jàmm ñaan yàlla Sénégal def ci jàmm lii nga xamante ni mooy mbas mi yàlla jëlee ko ci ni mu gën gaawee di remercier ñëpp yéen aussi seen liggéey kontaan nañ ci bu baax a baax a baax ndax taxawaay bi ngeen am jox nañu information bu baax xamal nit ñi nii dañu war def force force de l'ordre yi aussi ku ci nekk ñëw ñu jox la orientation ku ci nekk ñëw ñu wan la yoon bi nga war a jaar wax dëgg yàlla nit kontaan nañu bu baax a baax a